yéen a ngi góorgóorlu. waaw ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax a baax. vous de demain réew un défi à relever góorgóorlu leen bu baax. yow qu'est-ce que tu fais. artiste Hein? artiste. ah waaw théâtre. très bien artiste professionnel artiste professionnel. très bien ah xam ne réew de ku ngeen fi gënul gënul un mm. ndax métier mm vous êtes la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche mm-hmm. la voix de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir Je mm-hmm. xamul nag ban façon à ni def art dégagé art engagé waaw man art lépp laa non général lépp laa général parce que dafa mon débat vous oppose au Théophile Gautier man xam Théophile le chef de file des pharmaciens dañ daan le numéro après Théophile Gautier parce que Théophile dafa yeewu un jour l'art c'est le beau rien que le beau car tout ce qui est utile est laid mm-hmm. moom moo dirigé woon euh, les pharmaciens bon Hugo dit ko tontu nag Victor Hugo

Moussa di ginnaaw conteneur. kër gi ngay jàkkaarloo. si sama kër nijaay la. hablas español muy bien. hoy voy a demostrarte que soy capaz porque nunca nunca digo nunca olvidaré la conexión si vale vale. Ah, waaw vale kay. waaw kon yaa ngi yaa ngi hablas español. non man damaa jaaxle léegi espagnol bu njëkk ba daawuñu ko waxee xanaa xaw ma kañ lañ ko changé. non non enen misma walla lingo adde servante benn espagnol bi fu mu nekkoon ba tey jógu fa ah, pour man nag dañ ko fa xam naa lu ma fa gëj la ah. loolu moo ma téye quoi si si si si waaw soo gisee nag tey lu waraloon samay tànk ba ma ñëw fi mhm. ñu ñooy jëlee dëkk ci koñ bi mhm. gis la mhm. lu baax li ngay def ñu ne nag il faut ñu ñëw sepp la parce que ñun suñu ASC bi moo ñu ñor suñu ASC bi moo ñu ñor mu am fi benn ASC nawetaan bu mag. Mhm. ASC bi tudd jàppal ma jàpp. Mhm. mais mosu ñëw ci coupe. ne jaar na fi fii El Hadj Diouf football na fi Mohamed Zidane football na fi. jël hmm? coupe xamuñu lu ñu toog. Hmm. léegi nag te temps yi dañ comme nawetaan day waaj ñëw te amuñu moyen. ñu hmm. gis la nag gis lu baax li ngay def ñu xaar ñu ñëw jëm la proposé. def nga président ASC e bi. président bi waaw. waaw bon xool entre parenthèses. Mhm. Papa Mbaye. Mhm. ça va fii la jóge waaw Mbaye euh, tu sais moom sama géwélu juddu la. sa géwélu juddu waaw sama géwélu juddu la sa géwélu juddu. Euh, sa ah. géwélu noonu la. sa géwélu noonu la de. Mbaye waaw. Mhm. Mbaye yàq na sa dëkk dëkk bi yëpp. Hmm? nan laa xamee tubaab nga woon. feebar moo tax nga ñuul. Mbaye moo wax loolu. moo wax loolu. nee na yow tubaab nga woon. feebar moo tax nee na nga feebaroon feebar bu métti nee na yow douze tonnes cinq cent nga woon ngay rës nee na nga topp tubaab bi kenn xamul loo def foofu ba rës ñëw fii di leen naan c'est-à-dire nee na mënatoo dellu dañ laa refoulé. mais Mbaye moo wax loolu. moo wax loolu mais man maa ngi sama carte de jour mais man Europe taxi la si man saa yu ma neexee mun naa dem. ah loolu doy na waar de loolu moom moom moo ko xamante gëwul judd la xaw ma xam léegi nag. non c'est vrai parce que Mbaye ba mu fii mujj dafa mer. léegi en colère. ok. loolu la léegi daal mu affaire ASC e bi moom moo gën a andi te moom moo gën a ñor moo tax ma ne xaaral ma seet la xool nu ñuy jàppalee ci ASC e bi. Eh, d' accord léegi euh, damay may temps bu gàtt dina sa parce que duma ma ko bañ de toute façon boo nekkee si koñ euh, da nga si war a jàpp. Hmm. Euh, ba tax na dina si réfléchir. Euh, xam naa naa leen revenir d'ici 48 heures yow mën nga fi jaar. ok waaw parce que loolu moom dinaa fi jaar. waaw ah, mais li ma la wax nii rek tamit nii nii nii rek. Hmm. dama la xaw wax nii rek parce que borom baax. mais hmm. jarul ngay dëgg di xaar naan ma paasal ci lii rek. parce que waxtu bi yàlla damaa ñëw rek pour wax la. Hmm. jarul ay jox paas yooyu. waaw d' accord waaw mais. waaw maa ngi ñëw de yaa ngi ñëw de. waaw d' accord t'inquiète amul problème. kon euh, mën nga fi jaaraat d'ici 48 ah, heures. waaw waaw d'ici 48 heures. incha allah waaw xam naa

waaw euh, voilà léegi tu me mets ici ton numéro après ma defal la transfert hmm. ma envoyé la quoi. waaw non jarul envoyé. jarul hmm. envoyé weesu bu ma paas may dem ñu quoi. xam nga ñun man fi mu ne bon du ma defoon tool pratiquement sama lépp si sama compte la moo tax malheureusement wala léegi boo jaaree après dinañ incha allah boo ñëwee naa mën a jox dégg nga. yoroo dërëm. pardon. yoroo dara. nga am ay naafati moo yor. mais dégg Charles n'est-ce pas du Charles waaw waaw léegi. du ma Charles de du ma Charles ndax patin laa yoroo dara yow nan laay ñëwee bi jugee fële ñëw wax ay baax baax ci yow kon yow li di wax dëgg la. yoroo dara. nan nga gisee. su ma neexee su ma neexee. booy àttee enseñar las buenas maneras. waaw yow booy booy di fontoo. déggoo dara dara ni ñu dugg si kër yi. déggoo dara ay li njëriñ mel ma rafet lii du dara. hablo hablo espagnol. à la perfection digo. si li ban espagnol. à la à la à la perfection. la. la lingua de Cervantes. la lingua de Cervantes. si. yow xam nga la la lay wax ñun suñu aytee soxla wuñ la parce que yoro yoro am damaa ñëwoon fii di jéem a teste bi xool yow nga jógee kaaw nit ñëw fi wax ba mar amoo loo koy jox lu dul ndox bu set. ma boo ko sax jox boisson. xoolal ma fonto gerte gémmiñ gi di buuj nañu poxtaan xam nga loo bëgg. ate so toppal sama baram boo yow laa jógal. génn ma jógal nga génn si may jox paas li ma wax. Euh, eh ma prince mu ñëw waaw non non non tekki ko rek mu ñëw maa ngi si salle bi. Eh, prince góor la wala prince allez viens. Bobby eh. Bobby eh, prince non yow xaaral rek. Ah. Euh,

mbay bu ñëwee fii ki xaw ma Charles xaw ma genre ñeme yàlla may wax ma naan maa ngi woon Espagne fan la wax si ginnaaw conteneur xaw ma nag yow fuut gii dépassé ko.